mbégte contentement saa su ne la ñuy am actubuzz dikkaat ànd ak yéen fi nga xamante ne rek moo di Feeling Dakar TV saa su ñuy xool l'actualité people et au Sénégal dañ koy door rek juboo bi nga xamante am na ci diggante Pawlish Mbaye ak Wally Ballago Seck ki daal dox diggante bi nag du kenn ku ki nga xamante ne moo di Cheikhou Gueye alias Sanex mu ànd ceeg ki nga xamante ne moo di Awa Baldé naka ni samedi bi ñu génn ne mooy kër Wally Ballago Seck ñoom ñaar ñu daal di saafonte contentement amaat seen diggante waaye teewul ki moo di soxna Aydara di xam ne moo di Pawlish di ko soññ waaye itam di ko yedd ci ni nga xamante ne rek noonu la daal di doxalee digganteem ak ak ki nga xamante moo di Wally Ballago Seck waaye mu baatare xam le rek dafa daal di juum Wally na ko dégg naa lu ne dem nañ sax ba ne dama ñàkk fayda ndaxte dañuy nag da ngay moom moo di Wally Ballago Seck nag dem ci soirée ba maye fa koppar gu baree baree ànd ak Awa Balde waaye itam soxna ay dara daal di koy soññu yeddaat ko ngaa ko blende itam ma nga woon foofu ca bile soirée nag mel naka ne démb ñuy gis saa su nekk rek complicité bu exceptionnel jëmale ko ci Wally ak ci ñenn ñi nga xamante ne moom moo di yilee artistes yi ndaxte saa su nekk rek dañuy gis ñu koy tatagal waaye itam di ko jox déyow gi nga xamante ne rek dina koy am carnet rose ki nga xamante ne moom moo di Youssou Gana Gueye daal dinay amaat bébé mu nekk un prince donc jabar ji daal di koy publié mu nekk seen troisième garçon ñu koy souhaité rek euh, waaye itam di ko félicité bu baax a baax di ko ñaanal ba mu tombeek li nga xamante rek moom moo anniversaire am itam daal koy wayal bàkk ko tagal sagal ko tatagal ko donc di ko xamal ne moom mooy aawa yaay waaye itam moom moo uuf ki nga xamante ne ko nag yaay aawa yaay yaa ko fi muñ yaa ko fi xaar ay décembre yëkkati kàddu yi nga xamante rek daal koy jagleel aawam bi nga xamante ne rek dafa tombeek anniversaire am mu def geste boo xamante ne rek askan wi ñëpp a ngi koy daal di rafetlu tutu moom nag den doon jaaykatu diw bi nga xamante ne rek moo di tutu astu nag moom mi nga xamante ne moo fi amoon coow ak ba mu ko jëwee rek bañ jàpp ko ci application jamono gi nag daa am doom période boobee nga xamante ne coow li amoon na donc ñëpp ñi ngi naan Jojo baal ko bu ko plainte ndax dafa nekk en état ndekete état boobu ñu doon wax nag dëgg la dafa nekkoon en état de grossesse nag daal dinay am doom bu góor nag daal di koy publier ci li nga xamante ne mooy page TikTok am nag nag jamono a moom moo di ba leen uh, rek coow li nee na encore nag jamono gii ki ko sàcc nag du kenn ku directeur informatique bu télévision Futur Média nee daf ko defoon na bras droit yemu ca defoon ko xaritam defoon ko soppeem waaye itam wóolu woon ko lool sax nee nag kooku ay ati at mu euh, mu di koy jël koppar gu takkoo takku nag Aïssatou Diop Fall di yoo xam ne nee na moom moo di jiitalu euh, télévision Futur Média di Birane Ndour ma ngi cay jox ab médiation nee na nag Birane ma ngay apaiser du ko bàyyi benn yoon ndaxte koppar gi nga xamante gone gi nga xamante rek dakaa wóolu woon lool sës si moom rek nee ba gannaaw bu mu ko defee gilee ñaawteef nag du ko bàyyi ndax nee ay millions yu bare bare la gone gi daal di récupéré nga xamante moom moo di gënal euh, euh, ba tey rek ñu daal di wéyale l'actualité people buzz li euh, nga xamante ne moom moo di Actubuzz ki nga xamante moom moo di Dabay Baar buñ ko waxee yëpp dem ci muy euh, soxna ki nga xamante moom dabay nag dafa doon ay kàddu ci li nga xamante rek moom moo di bile coow nen nañ ko ñaanal tasul mi ngi toog di sëy sëy waaye yemul ci loolu itam daal di ñëwaat ci coowal foire waaye itam ci li nga xamante rek ñëpp xam nañ ne digganteem ak mbaaco nag jamono gi xaw naa doy waar itam waaye daa mel ne rek

moo ko daal di defar moom ak Armand borom këram yóbbu ko fa li nga xam ne mooy Louga fa mu bàyyeekoo ndaxte dafa ñëwoon Dakar uniquement ngir daan doole nee na Khadija Sissoko mu ne ko xam musuma xam ni Khadija xam na Doro Gueye te xamante wuñu mu nekk euh, mbir boo xam ne rek jamono gi mi ngi jël ampleur euh, dabaay nag nee nañuy bàyyi rek ku génn àdduna ñuy tudd deram wala sax di wax ci moom wala sam di yàq deram doon loo xam ne rafetlu wu ko dem na sax bay a

par Bril moom euh, artiste compositeur boobu nag ñu ko jox ndàmpaay bu toll ci fukki million waaye itam ñi nga xam ne moo di waa télévision Futurs Médias ba ci Bouba Ndour ñoom ne nee xalaatuñu sax génnee li nga xamante ne moo di bilee koppar ba tax ne rek ñoom waa télévision Futurs Médias mu di Bouba dafa amal ab recours ci bile coow ci bile mbir nag jamono gi nag mu nekk loo xamante ne rek violation droit d'auteur la woon waaye yàgg boobee ba tey ñi ñëpp yaakaar ni coow li jeex na waaye dafa mel ne rek mbir ma ma ngay daal di fa mbaxane doone benn mu nekk actualité boo xamante a fësal rek moom moo di Bril ak bi la coow fan la fas yéene lu ci mën am rek dossier boobu ubbi waat nañ ko rek pour mën a xam li nga xamante ne moo di bile coow fële ca télévision Futurs Médias ak artiste bi waaye itam tegul ca télévision Futurs Médias itam coowal Aïssatou Diop Fall coowal sàcc bi ak tubeuse jamono gii mi ngi laaj ci laajte Aïssatou Diop Fall ak bile informaticien ñoom ñaar fan la coow li fas yéene jëm waaye ak lu ci mën ci am ci na dayo lool ba tax na Aïssatou ma ngay laaj ay millions ba tey ci biir ak tubeuse gannaaw ki nga xamante ne rek moom moo di uh, coowal uh, Bouba Ndour ak Biril ci tribunal ba itam tey ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck itam moom ak ki nga xamante ne moom moo di Ibou Touré coowal Range Rover mu nekk dossier boo xamante ne rek def na ab diir tey nag ñu fas yéene ko doggali fa li nga xamante ne rek moo di ci cour d'appel ba tax na Wally Ballago Seck Ibou Touré nga xamante ne coowal bile oto nag mu nekk ab boo xamante coow gi jéggi dayo askanu Sénégal di ko waxtaanee ba tax na rek jamono gi ba lépp luy dossier rek daal nañ koy ubbi gannaaw ba ñu ubbee dossier euh, ki nga xamante rek moom moo di euh, ak Bril toftal ci ki nga xamante rek moom moo di Wally Ballago ak Ibou coowal oto mu doon loo xamante rek ci biir ak tubeuse coow li nga xamante rek